Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di siyaare te di nuyu di belaq tey ji nag ñu ngi fii ci Mbàkke Xewar ci barab bu Mbusoobe ñëw tey di siyaare si kenn ci sunu maam yi di sëriñ maam Mbàkke Soxna radiyallaahu anhu mi nga xam ne mooy dooy maam Abdul Xaadir taw maam Balla Aysa sëriñ Mbàkke Soxna nag euh, mi ngi gane àdduna ci diggante atum 1851 jàpp 1852 mi ngi fi jóge ci it fukki fan ak juróom bisu dibéer ci euh, weeru tam xarit bi mu fi jógee ñu wax ko sëriñ bi ca njaarim sëriñ bi joxe ndigal wax alaaji mbàkke buso ne ko dañ ko denc mbàkke xewar bu ngeen demee ci diggante borom saam na ngeen natt lu tal ci ab sebre ngeen denc ko fa sëriñ mbàkke so mooy ki nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa jox ndigal moo ko taxawee digle ñu denc ko fii ci wetu xaritam di ab soppeem di magam di boroom saam fii dañ ko denc sëriñ mbàkke soxna nag di jëmm joo xam ne mook sëriñ bi ñoo bokk ndax maam Abdou Khadim mi nga jur di taaw maam Balla Aïssa mook Serigne Mor Anta Sali mi nga xam ne mooy waajur suñu yaakaar tey ëllëg bokk wenn waajur ak Serigne Mbacke Ibra mi nga xam ne ci ay loxoom la yoroo euh, kon ko waaye juróom ji ni moom Serigne Mbacke Soxna mi ngi tudd Soxna Seck di bokk askanu cekkeen nga xam ne askan woo xam ne ñëpp ci lañ daan taamu euh, ci borom xam-xam ci lañ daan taamu ci ak mbaax ci la waaye juróom bu jigéen bokk moom sëriñ Mbàkke Soxna mooy nag di ko jaxasoon ak mag ñi waaye nag rawatina sëriñ bu mag bi sëriñ soppe sunu yaakaar te ëllëg nga xam ne daa jëloon boppam ak njabootam jëbbaloon ko sëriñ bu mag bi euh, la ci firnde euh, mooy euh, kenn ci njabootam yi ki ku ñuy wax soxna Roqaya Mbàkke ki nga xam ne moom la mujj feeñal ci jamono bi mu juddoo soxna Roqaya doomi sëriñ Mor Anta Sali di waajur sëriñ Mor soxna bu su defee ñëw ci sëriñ Mbàkke soxna ko dama bëgg nga may tur bi sëriñ Mbàkke soxna xamee ko na ko awma sañ-sañu joxe aw tur sëriñ bi moo am sañ-sañu joxe aw tur moo joxe ndigal li bi sëriñ Mbàkke soxna ñëwee ci sëriñ bi wax koo na ko Faati Gaye Njaay am na gone mu daal di bind ci suuf roqe ya Mbàkke daal di koy wërale boo dee tudd ko roqe Mbàkke kon foofa gis nañ ne sëriñ bi indi na kas bu wér-wér ndax nekku fa di laaj naan góor la wala jigéen la dafa daal di bind rek euh, wane ne nañ ko tudd roqe Mbàkke daal koy wërale kon kooka bàyyi woon na boppam Serigne Touba jëloon na ak njabootam it jëbal ko Serigne Touba ba tax képp kuy jigéen ci ñi a dem kër ci waxtu wi sëriñ bi nekk ñëpp sëriñ moo leen joxe ndigal ku ci borom saam joxewul rek sëriñ bu mag bi moo la joxe ndigal kon jëmm ji nga xam ne moom la ñëw fi tey di ko siyaar si mooy sëriñ Mbàkke Soxna eh, mi nga xam ne mooy doomu Abdou Khadir di taawu Maam Balla Aïssa radiyallahu taala anhum jërë ngeen jëf Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer